Mansour Papa Sow assurance Sëñ Dame Guèye Papa Guèye xeer ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee. waaw combat bu neex la. na boo xoolee xale mag la. waaw te Modou mooy li may wax rek champion la ndax boo xoolee bi mu jëlee roi bi ñi mu si teg rek da ngay xam ne kii champion la mm-hmm. ba pare mu ngi entraîné normal ah. mu ngi entraîné entraîné professionnel lay entraîné. waaw oui. Siteu mm-hmm. xale la ñëpp waxoon nañ moom xalaatul woon sax dina bëre roi. Mm-hmm, mm-hmm. kon tey bu bu yàlla suñu borom defee muy bëre roi. Mm-hmm. yaa ngi koy gis ne na. mi ngi mu ngi si bu baax a baax. te bu bëggee làmb rek. bu bëggee làmb. non dama lay expliquer la bu bëggee làmb. Mm. ku muy bu bëggee làmb bu bëggee làmb jooju. ku muy ku muy bëreel ku muy bëreel na tiit ndax xam tax champion la. ndax moom xanaa lenn man lenn rek laa doon jooy su moom mu bañ a entraînement mais moom buy entraîné. Mm. mbër mënu ko yeb bu amee doole bu amee doole. Mm-hmm. mbër du ko yeb ndax daa mën a bëre xam na lu muy def waaw te ba pare yow boo ko maanaam cest li ma gën a neex si moom boo ko bëggul yow bu la buggul nga daan ko doo ko daan. te loolu dafa baax si mbër. waa dañ koy ñaanal rek yàlla suñu borom may ko ndam lu sedd guy na xam ne ni maanaam ñun ñu ngi ñu ngi si ginnaawam. di ko ñaanal yàlla su ko defal kan ndam lu sedd guy ah hmm. ba roi bi ñëw Sénégal mu ñëw ah, ba roi bi ñëw jàmm gën ñi fete ko caaroy géej hmm. xool yëpp bége si hmm. kàttanu suñu borom. ok est-ce que est nga yaakaar par rapport ak fi mu du jaar ak ñaari xale yi ba pare tegaat ko ci est que dina yomb ci Siteu nga yaakaar. non dina yomb bu bu gëmee boppam. waaw Siteu bu gëmee boppam rek yomb si moom ndax sampion la. waaw. te ba pare encore une fois Siteu bu jàppee Modou du jàpp. xam nga loolu si 14 bi waaw ah. ba pare ba pare gis nga maanaam bu duggee mm, Siteu am na benn saay-saayu bëre boo xam ne bu fa àggee ak Modou Lo yaakaar naa Modou Lo mën naa ñàkk saay-saayu bëre boobu hmm. waaw mais boobu saay-saay boobu euh, si si am na ka am na ka mais yaakaar naa bu fa àggee moom hmm. wala Modou dugg fa hmm. yaakaar naa Modou mën naa ñàkk roi bi. kon daal combat bi tiitoo ci quoi. non tiitu ma si de wax dëgg yàlla. Hmm. tiitu ma si de ndax xam naa xam naa ko quoi. Hmm. bala ñoo jeexal Omar maa lay jaajëfalaat bu baax a baax nag ñii di bëree le 21 say adversaire lañ peut hmm. nga fekk leen fa. boo déggee ma ne fekk leen fa Balla mën naa arrêté ci diggante bi balaa sa ñaari contrat yi jeex Tapha Tine mën naa arrêté sans dépend sa ñaari adversaire lan signé nan bu yàggutoo tamit nan nga leen gisee Balla ak Tafa. waa combat bu neex la nag. waaw combat bu neex la. combat boo xam ne maanaam sénégalais yi liñ ko foog du amee noonu de. waaw hmm. ah, boobu dina am xeex dina am bëre. Ah, dina am xeex dina am ndax combat la. waaw ah, ndax boo xoolee Tapha Tine bool bool yëpp a ànd moom. Hmm. ndax boo xoolee da daanoon. Hmm. te séeréer ku ko xam. séeréer ku ko xam. ku ko xam maanaam boo ko daanee bul muy ñëwaat nam la siy teg waaw di leen wax nag combat baala Balla eh, Balla tamit ah, baala mu ngi jóge si si Boy Niang défaite moom nag du bëgg a daanuwaat ndax waaye dañoo am si moom yaakaar sama subli Balla amatul lu muy prouvé si làmb lépp jël na ko ah doon champion mm-hmm. xam la si doon roi des arènes mm-hmm. daan ñoo xam ne maanaam tey jii kenn mënu ma leen a daan si génération boobu kon kooku amul lenn lu muy lii si làmb mhm. li muy ñàkk si làmb waaw mais waa géejaa dañoo soxla ndamam waa moo tax nag combat bi day doon combat bu muti waaw en tout cas daal que le meilleur gagne mais doon na combat bu neex mhm. dina neex moom incha allah xeex xeex moom day am ah. <laughs> day am day am ndax Balla ku ko xam day xeex buy dox sa kaw sax day xeex waaw kon nag làmb jooju nañ ci séntu lépp waaw ah, doomu daanu sax nañ ko si séntu eh, non nañ ko si séntu si nañ ko si la ah. man naam dóor mu daanu de mhm. waaw macha allah mi noonu Omar Kane Reug Reug lañ dalaloon muy champion di ndaanaan bari lu mu def ci réew mi ak ci bitim réew yaakaar naa ne boo dee xool sax bitim réew lañ ko gën a maîtriser fii ci réew mi parce que def na fa ay performance yoo xamante bi ni macha allah performance yu lourd la rek ma bàyyi la nga tàggoog mbokk internet yi ak ñi lay ziar nga sant gërëm bu baax a baax. di nuyu sénégalais yëpp gis naa gis naa ñaani mhm, di nuyu samay coach yi ku si mel ni Milano Ramji you know ak euh, triple tri MMA maa ngi nuyu ñëpp ñoom Mido mhm, Ramson ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw du nuyu sama gars yi ma fi fekk yëpp du nuyu waa Caaray Géej ah, fukki penc ak ñaar yëpp maa ngi leen di nuyu waaw di nuyu waa Caalaan Jonwaar Ñoojoor Sal Yaso Basar Basur ah, Fimela Nangan Samba ah. mar faafa ko mar suru mar looj Diofior Fimela hmm, Djilass ak Djilass Sène ah Mbeelangij Gandiaye Diofi ah, Kaolack yëpp maa ngi leen di nuyu ah, ak Petite Côte bi ak waa maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu Obo Fall di nuyu jabaram Nogay Fall di nuyu Leyti di nuyu Modou Sène di nuyu ñëpp daal bu ma limee daal damay jum maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp képp kuy jàppale Reug rek maa lay nuyu bu baax a baax di la sant ah. waaw di nuyu mbëri mbëri caare géej yëpp. waaw di wax nag janaa bi ah. làmb nii la. Mm. waaw kuy bëre moom mooy daanu yow xale nga. waaw nekkaatal si sa bopp. ndax waaw di courage làmb nii la kuy bëre moom mooy daanu yow nekkaat si. Mm. boo si nekkaat rek yàlla suñu borom dina defar lépp jàmm. incha allah ñu ngi ñaanal tamit Pambo Dia. Ah. combat bi mu jëm yaa na ko suñu borom may ndam lu sedd guy si barki Seydina Mohamed. waaw di bëggee ñëpp. waaw bu ma limee daal damay ju maa ngi nuyu góor ah, di nuyu buur maa ngi lay nuyu bu baax a baax gis naa ni nga taxawee si combat ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. waaw di marié bu bees waaw seex <laughs> marié bu bees bi borom jabar ju bees bi ñu ngi koy ziyaar ah. di nuyu tamit sama soxna. waaw di nuyu ñëpp daal bu ma limee daal damay jum maa ngi bëggee ñëpp di nuyu ñëpp. waaw di ñaanal tamit la deger Guiers yàlla na suñu borom teggi nattu bi ndax maanaam nit la rek hmm. ku dul juum amul waaw kon ñu ngi koy ñaanal nattu bi yàlla na ko suñu borom teggi mu demaat ci ay njabootam nekkaat si lu mu war a nekk si barki Seydina Mohamed ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp waaw. daa mel ni moom gars yi téye nan la de communication et macha allah waaw mais dañuy taxale de. comme gars xam nga mooy li may wax rek. Mm-hmm. ñëpp mënuñu laa bëgg. waaw. Mm-hmm. ñëpp mënuñu laa bëgg. ndax tey jii boo xoolee yeneen euh, salallaahu alayhi wa salaam. Mm-hmm. Seydina Mohamed. amoon na ay kon nag ñun buñ ko buñ ko bañ. du ñëw rek baax na mais nañ ñu fekk ñu jug. nekk si lu ñu war a nekk. waaw loolu la quoi di santaat yàlla bu baax di ñuy ñëpp. macha allah waaw. mi ngi noonu rek lan dalaloon amaan mbégte ak contentement bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production Source A jërëjëf. bi ak waaye nag am benn combat